asalaamualeykum wa rahmatullah waa lu xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di ñëw di indi sama modeste contribution ci thème de société yi ngeen fi dugal comme j'ai l'habitude de le dire nee naa leen les séries yi là ce que les font tout bas ils le disent tout lépp lu feeñ ci série yi rek day fekk ci kër yi lañ ko jëkkee ba pare en un premier temps je vais parler d'abord euh, de la monogamie xam nga monogamie signé ko erreur bu rëy la parce que yàlla lu mu wax rek ak lu mu def rek moom xam na li tax xam na ne l'homme est naturellement polygame góor gu la ne mun na yem si benn jigéen aussi day wax lu la neex rek te au moment de signer à la mairie ñun même les parents on a l'habitude de dire à nos filles là il faut signer la monogamie te loolu c'est une grosse erreur kenn bëggul wujju gaa mais yàlla moo dogal loolu góor gi tamit bu mu bëgg lu neex jabaram nopp ko ba tax mu ne ko dama lay signer monogamie parce que du dem man mariage yi ma gisoon ñu sunu euh, signer monogamie yépp finalement ci ay cassure lay mujj parce que mënul ne lome est naturellement polygame te yàlla mi bind doomu aadama moo ko gën a xam bu nee jabar bu nee góor mën nga jël ba quatre femmes parce que xam na nature góor góor gu la ko wax aussi au bout d'un certain temps bay mujj di làqatu di nëbbatu di doxaan ak di takk te takk suuf yu bari yi fi am yépp nit ñi di ko fustiger di ko dénigrer ay affaire bu signé monogamie rek moo ko indi góor amal fitu ne man je signe polygamie à quatre dames comme ni nga ko waxee euh, ci biir euh, vidéo bi góor mun na signer mm, mm, mm, polygamie ba pare sax te du ko def mais l'essentiel nañ ko def parce que loolu ay cassure ak ay wor ak yu kat xamul lay indi góor ñi nañu am fulla fay fayda ju day na bu ñu demee maire yi di signéeti bu leen jigéen di wax ba tax ñu ne bëgg lu neex seeni jabar ba ñu wax ko parce que ñoom ci seen bopp en âme et conscience au moment u ils le fond xam nañ ne c'est pour plaire à leur dame mais xam nañ ñoom ci seen bopp munu ko yàlla moo gën a xam doomu aadama moo bind doomu aadama ba mu bindee jigéen mu yem ci benn góor bind góor mu war a am quatre dames moom xam na nature góor xam na li góor àttan xam na li góor mën xam na ni xel ne loolu moom bu dee li nga wax nag à propos des mariages d'intérêt yooyu tamit ñun yaay yi lépp ñun la da ngay gis ku jóge fële yor lu dul jeex fekk sa doom am na ko mu bëggantee loon nga ne ko tey kii ngay sëyal ndax xaalis ba yaay yi tamit kenn du ñoom loolu tamit dañ ko war a bàyyi parce que sëy base bi mbëggeel la sëngam sëy bi nga xam ne mbëggeel day am de part et d'autre ñu dem ba ci yàgg mu am beaucoup de problème master sëy boo xam ne euh, mbëggeel gi sa unilaterale loolu du mun a dem alal neex na trop mais yorul sëy du alal rek mooy def sëy nit ki pour nga sëy moom il faut nga bëgg ko ngeen bëggante mais xëy rek ne am nga alal am naa alal lii la dañuy sëy loolu tamit mënul dem te yaay yu bari ñoom au lieu de privilégier l'amour de leur euh, fille dañuy bëgg koo xam ne daal yor na oto yor na kër ainsi de suite lu jeex comme ni ñu koy waxe pour bëgg daal prestige ak yooyu te loolu aussi tamit du dem sëy base bi na nekk mbëggeel mais bu ko intérêt lalee bés bu intérêt ba jeexee rek sëy bi day tas loolu tamit ñun yaay yi nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ñu bëgg kut ko kut rek ne suñu doom kii ñëw na am na alal xamuñu nu alal alaloo moo tax yu bari problème yu di am lii yëpp divorce yëpp loolu la nañuy xool bu baax a baax a baax ki suñu doom bëgg pour ce qui est des castes et autres la man de contre ma ko mais j'ai vie que sëy yu bari bu fekkee ne c'est entre caste ak ku dul casté toujours day am problème parce que benn côté bi mun na ko accepter mais tout le temps dañuy gis sa beneen côté bi du ko accepter soit muy géer gi soit muy ki nga xam ne casté la am na caste yoo xam ne bëgguñu géer am na géer yoo xam ne bëgguñu casté bien que nag lool du yoon man je ne le cautionne parce que ñëpp yem sa yàlla yàlla dafay bind ñëpp nous sommes tous égaux devant Dieu loolu ay considération yi lu indi fii la mais nag barina aussi lu muy indi problème ci sëy ba nga xam ne aussi mat na seet ndax da ngay gis géer dem sëy kër ay ñeeño wala ay géwél mais day dégg ñu naan ko waaw nangam nàngam di ko xas daal et versa ba nga xam ne tamit mat na seet parce que ñiy bëggante mun nañu bëggante sans arrière pensée ni quoi que ce soit mais les deux familles dañ ci am dañ ci am solo te deux familles yooyu en général bu yàggee ba yàgg rek da ngay gis ñu mus a xas kooku ne ko ah yow de géer nga yaa ñëw ci géwél yi wala yow de géwél nga yaa ñëw ci géer yi loolu dañ koy dégg yaay do jëkkër ji dina bëgg jabar ji bëgg mais parents yi ak alentour bi ñoom ñoo koy yàq moo tax yooyu tamit c'est des chose à considérer avec beaucoup d'attention waaw man de dama koy ragal parce que tout le temps bu yàggee ba yàgg rek day indi problème bien que man de je ne le parce que ñëpp a yem fa yàlla géwél géer ainsi suite yooyu amul c'est des considérations yoo xam ne bien que fi lañ ko fekk nag fi lañ ko fekk de mais boo waxee ba dugg ci tamit yàgg yàgg yàgg sëy yooyu day amee problème te dañ ci gis ay cas yu baree baree baree baree di bëggante sëy njaboot juddu mais ci biir parent côté famille bee xas la wala côté famille bee xas la mu indi ay problèmes yoo xam ne daal vraiment loolu tamit nañ koy xoolaat bu baax a baax a baax man daal. mooy ci sama xalaat